ginnaaw lépp sénégalais yaa ñoo ko wax Qatar 2022 suñu équipe qualifiée na dem ci coupe du monde suñu première match suñu deux ñu deux zéro waaw man des fois man dama comprendre sama mbokk sénégalais yi tout le monde ci football ci musique nit loo xamul dañ ciy maandu Aliou bu amul ñu mu jël xëy na ñooñu am na lu tax jëlu leen ndax moom moo nekk ak ñoom critique nag day avancé loo nit mais Aliou Cissé moo nu indil coupe d'Afrique bu nu am benn defet kese ñu bëgg ko xalam nit du fàtte démb te du fàtte lu baax Aliou entraîneur la africain la sénégalais la nan ko bàyyi mu yor équipe bi Sadio Mané nag dañ koy ñaanal mu wér bu wér mu tamit football onze personnes ñoo koy yor ak ñu toog ci bàyyi ñi nga xam ñoom nekk ci terrain ñu yokk leen ñaax leen encouragé leen ñu gagné Qatar la am yàlla yàlla may ndam après ñu dem ñu dem mën a dem ba final dem final rien n'est impossible dans ce ku la waxoon tey Allemagne dañ koy dóor doo ko gëm ku la waxoon Arabie Saoudite dina dóor Argentine doo ko gëm y a pas de secret nan jàppale Sénégal yi te bàyyi wax ci te suñu mbokk suñu mbokk sëriñ yi lan génn ci suñu football ah, man sëriñ laa leen wax xam nga charlatan c'est français. c'est donc ñoom sa ay Sénégal la bu dee ay patron. ñu ñaanal équipe bi ñu gagné moo gën. mais ku wootu naan fay ma da la war a dóor ba nga bëgg a dee. <laughs> da la war a dóor Macky Sall da a jël ñu parkat la. stade Demba Diop lan la par quatre la dañ bëgg ngeen ñaan équipe bi indi coupe bi bu leen kay ñaan leen ko. merci beaucoup ah wala wala li wax noonu. non li wax kay c'est baax na. instant yii moom xaaral